ఆడేదాట కిందలు ఆడేటట్టు అది Thank you. nekk. man day kaay. non ma gi tey lay dayal. dafa la neex mën na tuuri. dinaa fa jaar. non kii calme. xaar tuuri ba mu ñëw. waaw nga taxaw baax na. Thank you. Büyük ya lan. ñëwoon nañ fi nag Oh. Oh. waaw sa kii lii mënul tëj tuuti ba bu tëjee doo gis. kii mooy yàqu moo tax yow demal nii demal nii mën nga dem. kii moo tax kii mooy sama tool rek. garaaw garaaw far. xarit baa amal na nga jóg rek da ngaa ne man li ma doon topp yëpp tey. Tungal bi waaye kii bi nga doon. ma ne ko dugal ci li ma gën sax